salaamaaleykum mbokk internet yi ginnaaw revue de presse bi ñu ñëw ak yéen ci xibaar yoo xam ne ñenn ci ay doomu Sénégal la soxal xam ngeen ne doomu Sénégal yi am na ci ñoo xam ne contrat yi nga xam ne moo leen lëkkale woon ak seeni club jeex na tàkk maanaam agent libre la ñu doomu Sénégal yooyu nag ñenn ci ñoom ñoo ngi ci yoon ngir am club bu bees tàkk waaye am na yeneen doomu Sénégal yoo xam ne dañoo bëgg a soppi xar kanam dinañu ci ñëw ak yéen ci ni mu gën a yaatoo laata ñuy ñëw ak yéen ci yaatal gi nag ñoo ngi ñaan kuy gan ci page bi te abonné go nga abonné bés cloche bi nga xam ne lu ñu dugal rek di nga bokk ci ñi koy njëkk a jot di leen ñaanit ngeen di wéy di aimer di partager yéen a ngi koy def sax waaye doyut suñu bëgg-bëgg moo di suñuy bànqaas law fépp doomu Sénégal yi di mën a am xibaar yu wér te wóor te loolee képp la ñu bëgg ñu door xibaar yi dooree ko ci Nampalys Mendy moom ci doomu Sénégal yi amul club jamono jii ci la bokk ndax ma nga woon ci Leicester waaye contrat bi ko lëkkale woon ak club boobee jeex na tàkk bu ñu sukkandikoo ci Pape Mahmoud Gueye nekk tàggat point sn li mu xamle moo di doomu Sénégal bi mi ngi ci yoon ngir dem ci réewu Arabie Saoudite li ko waral moo di door na waxtaan ak club bu ñuy wax Al daa nekk ci réewu Arabie Saoudite këlëb bu mag la nag club boobee li ñu bëgg moo di xaatimal contrat Nampalys Mendy yóbbu ko ca championnat boobee mu doxal nampalis mindi ak waa club bi door nañu waxtaan te waxtaan bi mi ngi jëm kanam bu baax xibaar boobu Pape Mahmoud Gueye nekk ca tàggat point sn moo ko xamle. ñu jugee ci Nampalys Mendy jël beneen doomu Sénégal boo xam ne moom it contrat bi ko lëkkale woon ak clubam dafa jeex tàkk muy mbay Diagne mbay Diagne ma nga woon ca Fatih Karagümrük nekk ca réewu Turki waaye contrat bi ko lëkkale woon ak club boobee jeex na tàkk moom it mi ngi ci yoon ngir dem ca Arabie Saoudite waaye ca deuxième division ba nag la ñu koy séentu xibaar boobu Pape Mahmoud Gueye moo ko xamle Pape Mahmoud Gueye nee na li tax nag may Diagne bëgg a tànn club boobe moo di xaalis bi dafa bari lool ndax nee nañu ko soo ñëwee ci sunub club contrat bi ngay xaatim fii ñaari at yi lu mu gàtt-gàtt mën nga ca am quinze millions d'euros quinze millions d'euros nag bu ñu ko calculer ci franc CFA dina mat dix milliards loole nag xaalis bu bari la loolu bokk na ci li tax Mbaye Diagne nangoogum ngir dem ci deuxième division bu Arabie Saoudite xaatim foofee contrat te waxtaan bi sori na lool bu dara soppeekuwul balaa yàgg mën naa officiel bu ñu sukkandikoo ci Pape Mahmoud Gueye ñu jugee ci mbay Diagne ñëw ci transfertu Iliman Ndiaye kii moom contrat am jeexagut waaye nag li ko dese ci contrat ci Sheffield United bareetul ndax benn at képp moo des ci contrat contrat bi ko lëkkale ak club boobee doomu Sénégal bi nag tànn na olympique bu Marseille te juboo na ak club boobe ci lépp fi mbir mi tàggatémbe moo di ci diggante ñaari club yi te juboo nag mën naa am li ko waral moo di Marcelinho mi tàggat olympique bu Marseille gone gee ko tee nelaw te profilu gone gi da koo neex lool mi ngi soññu njiitu club boobee rawatina Pablo Longoria ngir ñu xaatimal ko contrat te gone gi nag contrat bi ko lëkkale ak Sheffield United benn at képp moo ci des prime nag bu ñu ko xaymaa maanaam njëgam dina toll ci dix millions d'euros jàpp quinze millions d'euros kon balaa yàgg jubo mën naa am te doomu Sénégal bi nag club bi mu tànn ci biir xolam mooy Olympique bu Marseille loole sax moom xamle woon na ko naam club yi ko bëgg bari nañu club yooye mën nañu caa lim Everton AC Milan waaye gone gi moom dem ci Olympique bu Marseille moo ko gënal loolee la Pape Mahmoud xam le ñu jugee ci Iliman Ndiaye ak i tànneefam jeexalee xibaar yi ñu jagleel doomu Sénégal yi ci doomu Sénégal bi di Rasoul Ndiaye Rasoul Ndiaye nag milieu de terrain la ci équipe nationale u bi waaye jamono jii nag mi ngi ci club bu ñuy wax Sochaux nekk ci Ligue 2 bu France club boobee nag soo moytuwul balaa yàgg dina fa jugee ndax jubo am na ci lépp ci diggante Soso